wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima salaatan wa salaam wa barakatan taqudu biha li shaykh al-xadim al-qaa'il ajaarani al-xaxaaru min jumlati al-idaa wa qaanatuhum armaaxuhum wal madaafi'u qalabtu kulli li karimin wa baqaa tawbiqa iqraman wa xultu baxbaxa qalabtu kulli li karimin wa baqaa tawbiqa iqraman wa xultu baxbaxa mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokkum taalibe Cheikh Njaay Gànna fas yéene dikkaat ak yéen ci lenn ci jataayi sëriñ bi noo ngi siyaare mbooleem ñi nga xam ne ñooy topp jataay yi di jaajëfal bu baax sëriñ Mudu Ngom ngi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def joyal ko ci Cheikhul Qadim bismillahi irrahmani irrahim am na ku ñuy wax Ahmadu Saw radiyallahu taala anhu mas naa jóge Matam ñëw gànnaar di seet ci sëriñ tuuba xaad lahu laahu bëggoon itam bu yëgsee nattu sëriñ bi ci arab yu jafe bi mu agsee bay wax ak taalibe yi sëriñ tuuba xaad lahu laahu maxtara ne ana moom xëy na muy aw ñu ne ko gan gu fi yegsi la sëriñ bi ne lu mu doon ñu ne ko yow la soxla sëriñ tuuba xaadalaxu laaxu maxtaaralaxu ne bisimilah nee leen ko mu yegsi waaye ba muy jox sëriñ bi loxo mënta wax yenn arab faatixa sax mënatu koo tari bi ko sëriñ tuuba xaada lahu laaxu maxtaara lahu joxe loxo ab diir daldi muuñ mu xam ne feeñu na ko ba mu bàyyee loxoom lépp door a dellusi ci boppam sëriñ bi ne ko ana lu doonoon saw yoon mu ne ko mbakke man kay wan nga ma lépp sëriñ tuuba qaada lahu laahu maxtaara lahu ne ko ahmadu li nga wax dégg naa ko waaye danga xamul ni yàlla mi nu bind digal ñu tere ñu dana dikk àdduna ame jëm jëmmi doomu aadama ni ñun amee kër ni ñun di saytu jigéen ñi ni ñun di ami doom akuk njaboot ni ñun di fi bàyyeekoo ñi di ko denc fi suuf si ni ñun te kooka deesu ko xam ahmadu saw radiyallahu taala anhu ne ko mbàkke kon yowa daa joxe boppam siiw na bu ñu xoolee lu bari ci waxtaan yi sëriñ tuuba xaada lahu laahu dañuy leeral bu wér ne daa yore jëmmi doomu aadama waaye leneen la nazaani min alwara baaxil qadim allamahum bi annani abdul yàlla nañu yàlla ci boppam ci barkeb sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaralahu wallahu alam sëriñ tuuba xaadalahu allahu nee na fu ma ñaar tudde ñetteel naa leen fu ma ñett tudde ñeenteel naa leen siw na loolu mooy jeex ak seey gi sëriñ tuuba xaada lahu laahu maxtaar lahu sey ci boroomam sunu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran loolu sëriñ bi wax su ko defee sëriñ bi li tax mu am sañ-sañub wax loole mooy damma xayaati di xayaatillaahi allahu daaxilan li jinaanillaahi yajiduni inda malikil muxtadir kullu waliyin lil jinaani yaqtadir ndegem léppam dugg na ci boroomam moo waral meloy boroomam subhaanahu wa taala di nekk ci moom su ko defee am na yoo xam ne ku ci xamul lu bari lay gën ci yow mooy foo tollu di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu yeel la ñi namm ci nam ko yelle ci yow tey bañ a gaaw a weddi wallahu aalam sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu mas naa wax sëriñ njaasa siise radiyallahu taala fu ne ko ñett dañu leen di def ñuy lenn te duñu lenn mbir mu yéwén xaajo ju faju ngërëmul yàlla sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu ne ko foo fekk boroom mbir mu yéwén day bari xiiwal yu koy dikkal foo fekk borom xaajo ju faju xol ba day sedd doonte amul ku koy fabal ak satala foo fekk boroom ngërëmul yàlla am ngaanuwaayam manees na ca jàpp siiw na jàpp moom ci ndox képp lañu koy doxee waaye lan mooy waral jàpp ci ndox bëgga laab képp ki am ngërëmul yàlla subhanahu wa taala nag te muy dëgg ay waxam ak ay jëfam ak ay yéeneem ak ay yéreem ak aw yaramam lépp leer lay doon nga xam ni boo jëloon ay yéreem di ko taal du tàkk boo doon lakk aw yaramam itam du lakk ñu mel nii nag foo leen fekk ñu néew lañuy doon ci jamono boo leen gisee itam te doon ku nar a texe na leen sopp sopp koo xam ne bu ñu la joxoon seenum ngaanuwaay nga naan ko wallahu aalam yàlla nañu yàlla dollee dimbali ci barkeb Sëriñ Tuuba xaadalaho laahu maxtaaralaho sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu mas naa wax sëriñ cheikh ka radiallahu taala anhu cheikh ka lii nga ma wax nanga dem kër cerno mu mel ni ak tabaski nga dem kër cheikh gaawaan mu mel ni ak tabaski nga dem kër mandumbe mu mel ni ak tabaski te fii maanaam booba sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu gànnaar la nekkoon loxo du fi dajeeg gémmiñ muy sagwaar li ko waral bu ma soxla woon dara ci loolu duñu ko am ridwaan moo yore ajjana te bëggul àjjana xeeñ ko siiw na maa ngi fàttali ne gànnaar ña fa àndoon ak sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu daj nañu coono yu metti lool waaye itam lépp lu ñuy xemmem tey ak ëllëg wax na leen ne na ngeen ko am xam naa coono yooyu moo waral sëriñ Cheikh Ka radiyallahu taala anhu mi di wax loolu sëriñ Tuuba ndax xiif képp daa doy coona ci doomu aadama te waxtu wu nekk dañu daan bind ak a jàng te gànnaar ku ko xam-xam ne nekkul barab bu sedd bu bari ay garab ca jamono joojo moo tax waxtu wu nekk war nañuy ñaanal sunu maam ya tey sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala ci sëriñ tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu coono yooyu moo waral sunu jàmm ji ñu am tey war nañoo gën a farlu te xam ne ak yokku dégg mooy dolliku tuyaaba waaye du saaxit kese wallahu aalam sëriñ tuuba xaadalahoo laaxu maxtaaralahoo nee na nelaw xëy na bari nelaw la bëgg a wax faje naa ko kafe toxul ma am ci la ma ca bëgg ma faje ko attaaya taxul ma am ci la ma ca bëgg waaye ba ma ko fajee xiif laa tàggoog moom siiw na loolu ñun képp lay jàngal sunu diggante ak nelaw yu bari ndax sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu wax na ne yow bi nga xam ne yaa bëgg xam-xam na gaawtu ci sa kanam te nga niiwal ay nelaw te wàññi ak lekk wallahu aalam sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu ne na aw ay foo ko dégg ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu fay ak lu mu la sori sori bul naagu ba jàpp ne mënta agsi fi yow siiw na yàlla nanu yàlla dollee dimbali te musal ñu ci aw ay te may jàmm ci barkeb sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu wallahu aalam mbokk yi ñoo ngi leen di jox di daje ëllëg incha allah di ñaanal cheikh muhammadul muntaqa sunu boroom subhanahu wa guddal aw fanam lool ba mu wattali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul jërë ngeen sëriñ bi dana tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey